amagut solo. waaw waaw amagut solo bu ñu xoolee. Elton nu mu mujjee. Elton daa ñàkk. Modou Anta numéro 2 nu mu mujjee. Modou Anta numéro 2 daa ñàkk. kon ku fa am. kenn amagu fa. xanaa <laughs> loolu yàlla doon toccalu lay goote. waaw waaw laay dem fi mu ne nii ak xale ba la ca digg géew ba. waaw waaw ñoom fi mu ne nii ñoo ci desagul. mën naa am nag yeneen xale ra duggaat ci diggante bi. alaaji Moustapha Ndiaye ba xam nga leen. waaw sunu liggéeyu xale saako bi la ñu jëmee. bu ñu bu ñu liggéeyul maag yow. waaw xale yi sos nañ ñu te saako ñu jëmee. xale yi lu junne màgget màgget am rajo bu jëmal gone gars yi a wax kaar macha allah. waaye lu junne màgget màgget am rajo bu jëmal gone. lii mbaa wóor noo. <laughs> lu junne màgget màgget rek am rajo bu jëmal gone. lii mbaa noo. xale yi ñëw nañ ci ak doole. <laughs> maam sa amul yàggal ci géew bi maam saa toj na nen. maam saa toj na nen. duuru ji ne caméraman yi maam saa moo jàkkaarloog ñun dëggal Fane Ndiaga Ndiaye. yëkkati gu dégg man ñu dégg ko. dégg nga wayu lamb. non kooku du faañ dëkk. ah moom ah moom la moom la moom la. Pathé Mbaye mais dara tey fa laa ak moom. ah te gis nga ñëw na ci moo tax. bëgg rek moo am solo. dëgg la. may na sa moom ñoo nekk ca jàkka ja ñu pare ma jotal ay kàddam muy nday sekk sama jigéen bi nga xamante si nday maram loolu may mi ab tawam yàlla yàlla def ca barke maa woon kàddu ya may na ma fa wax teranga ju bari waaye maam Ndiaye tëgg ne xoolal maam Ndiaye ñëw na xam nga yëg lii mu def da koo yàggee waaye dëggal la mu tëgg ak la faan njaga way ba pare gëtan xale yi ni leen na dëgër waaw waaxu dox ba nee dellu siwaat ci coono ñu leen foofu mi ngi naan leen na dënd bi sax hmm. na mbalax mi toog bu leen ma nax xanaa xam nga yenn saa yi man géwél bu mag gestam hmm. mën naa la koo tekkil Alaaji Moustapha Ndiaye waaw yaa ngi tekki Paate Mbaye li Moustapha dana leen na cool mi jàpp mu dënn bi cool mi na jàpp dënn bi na mbalax mi sax ni leen bu leen ma nax daal di leen di déglu xale yi yow mu dëgër mu ànd joxe galañ bi joxe galañ ba jërëjëf <laughs> ngam consulté na ay sisam ngam consulté na ay sisam sifflé na Massa Kabarna amul yàggal retraite. amul yàggal retraite maa du jam avertissement. ah kay génn na. topp ko tuuti na jam avertissement. ah kay am na léeg ba yandoor moom ba yut sax. am na avertissement. waaw day am avertissement non koo def waaye bu dul soo ci géew bi xam lépp dëgg la. loolu ne bu ñu ko wax nag. bu ñëwee ci géew bi duudu karal ma leen ñoom ñëpp. kii kay sorte de sorte moo tax dina nag la waay sam gisoo am na lu mu sungguh xaw ma ya. sungguh nga mën ko yëkëti war na say loxo dañ koy sétat wa ndax niinul wa parce que li mu ko koo xamuñu lu mu doon xamoo li nak man dal mbeur bëgg na ngay téla paré mais ñoom fay ñu doon lu jar ñu leen di dag ah way ah ah sotti de lay lool leer na xana avertissement légui maam sa amna benn poñ taw si ablis bu léegul en attendant te 5 minutes la ñuy bëree plus 5 minutes 10 rek. 10 minutes nga ñàkk léegi Mame Sa jiitoon na ko 5 rek waxal loolu. waaw acca ñu ngoog Mame Sa la mu sampoon Abidou ma too ak xale ba. mais Abidou na ni amul yàggal waree kër Baba ah, kër Bakar. kër Bakar nag xale bu mënta bëre yeewoo fa de. waa xam nga lamb ja daa nekkoon ca moo tax ñoom ñëpp a mën a bëri doon nañ ko. daa saxoon takk ca waaye maam sax mi ñëw ni ah. moo daan nga bal moo Anta Gueye soo bi soo bi mi entraîné soo ah. moo ko daan rot bu jeexee. wallaay dégg la Seck daa naan. moo tax mu dëgër. bu rootee yàlla ko dem indi waaw moo tax tey am na tàkkusaanu boppam dégg la ku dul topp kan du la topp Alaaji Moustapha acca ñoom ñaar ña ngay leetoo Mame Sam koy wër ñoom ñaar ñoo ko jëw Mame Sam loxo ndeyjoor amul yàggal loxo càmmoñ Alaaji Moustapha sekk na naan amul yàggal mi nga yaakaar amul yéene xeex loolu la nar xanaa gisoo ar nu mu arñee ak garde bi topp ko sëkkatal na ko te Mame sa punkal la mat na waaye daa neex a ñeme ko ba ci xar kanam gi la xaw ma la waaw xam nga xam nga xam nga mbër faa mu agressif. waaw këy. faa mu agressif te dafa agressif woon nag. mbër da ngay màtt di fas sa kanam. mu nga waaw boo dee xool ba du doon bëre. waaw da ngay ñemee. moo tax xale bi sëkkatal waaw waaw. xale baa ngi déplacé wu Mamsa. Mamsa. loolu Gris ma ci doy. Mamsa jiital droite. Gris Bordeaux mu yàggal jiital droite. kanam gi day fas koŋ koŋ. di saxaar. waaw boobu loolu la mu doon. Eh, sànni na ba baax boobu loolu wàññiwul mbir daal bala nga góor ñam ko. da koo da koo nu koy nopp da koy noggatu. sànni na léegi sànni waat na droite mais daf ko sori sànni waat na droite waaye dafa sori Mame Sa. sànni waat na droite waaye dafa sori Mame Sa. ñoom ñaar ña nga léetoo round d'observation congo amagul dara amagul round d'observation bi mi ngi bëgg yàgg sekk. maam sa eh xale bi dem na. boo deful naag na ko door mu wadd. door na ko bu dal boo deful naag na ko door mu wadd. door na ko droite bu dal eh, kii moom saa mi. dafa téye loxo ay wàcce garde bi. wàcce garde bi mel ni kuy bëri mbapat. mën nañu ko door mu daanu. ah oui projet boobu bu dalee. bu dalee waaw est-ce que mi ngi fi. Ah, kay kenn xamul lu mu doon. amul yàggoon koy noggatu de. amul yàggoon koy noggatu. di ko ñuqutu eh, man sama sunu mbéy Thiès man jaaxal ma xoolal te noonu lépp boobu muy mëb ci suuf bés bu ko wuysee bu siggee moom ci kaw dafay fete mu ne këpp. ah waay waay man lii xaw ma lu mu doon Alaaji Moustapha Ndiaye reporter man xaw ma lii lu mu doon sekk daanoon ah ak sa garde rek topp mbër mi di dox. di duré ko ñu mu lay fukki di épercule rek. léegi nag la toll nee naa agressif moo tax ñu ñeme ko. njëmb ñu ñu ne maa ngi waaye baax na rek ñu gis <laughs> ñoo war waaw xam naa ne noonu la ni mu jëlee. ñu ay béy lañ balaa ma ñu duñ dee seer duñ dee ci rondol. boo moytuwul dañuy mujj ngem rek nan ay béy lañ duñ dee ci rondol. buñ <laughs> mënta sax sax mën a wajeeg wajeeg yi ba wax dëgg yàlla. waaye di direeku sa amul yàggal bu kër Baakar. dóor mu daanu mën naa am ci combat bi. non mën na ne ah, sa ma li muy wut a xamul mu doon. dóor mu daanu ci combat maam saa mi li muy wure mën nañ koo door mu daanu. door mu daanu mën naa na ci combat bi. na maytu xale bi ni muy ci gardam baaxul. alaaji Moustapha Ndiaye laaj ma lu tax. lu tax sekk naa doon. maam saa daa jiital pied droit ak gardam boo xamante ne kenn xamul gardam lu mu te ko am yéene duma ko. xoolal bu ko koree dër ko percule ñu ñibbi. ba dañuy ñibbi maam saa tàggoo na góos. tàggoo na ko góos taxalikoo nañu góos. taxalikoo nañu góos mais mais mais percule droite xale bële bu daloon ni ko waxe mu ñibbi. mais alaaji Moussa ouverture bi am fii dafa dafa yaatu. dafa bëri alaaji Moussa Fa. lan moo tax mbër yi duñ def nii jàkk. jàkk. waaw. toj sa garde. Ah. xañ ko sa bopp. Ah. <laughs> garde bi nga maye fii buñ ko gisoon. man na la cay fay xaalis bu bari xamuñu dara lii xoolal lii dañ koy door mu daanu xoolal dañ koy door mu daanu dañ koy door mu daanu est-ce que jël ku kawo na dafa kawo ay eh. maam sa kawo na kawo na barke rasulullah maam sa kawo kawo na mais xale bi da koo door mu wàllu oh barke rasulullah dafa kawo mais xale bi moom mënoon na koo seetaan bu ñu seetaanoon rek mu jeex yow maam sa dafa wadd buñ <laughs> ko dóoree comme mango bu ñor maam sa mi ana ana gardam Alaaji Moustapha ba ma gisul gar laa na combat bi mais fii nag na profité fii su ma day noppalu na jafandu noppalu na jafandu bu mu def benn day noppalu na serlu tuuti xale bële moo waroon appliqué fi mu toll koy mais maam sa avantage sa mooy serlu bu serloo ba noppi bu nangu ñu tàggali ko parce que kii yéene du ma ko la nga waxoon jugu ci de bu ma ko moo ko tax a jóg ma alaaji Moustapha Ndiaye ñu ngi bëgg ci lamb ak yow <laughs> buñ ca xamul dara kenn xamu dara wala xale bi jugul ca la nga waxoon ña nga ca ñoom ñaar te xamul fii ah xam la mooy avantage maam sa waaw loxoom bii mu jàpp ci góos baax na mais dana ñi may def action xam nga soo naay maam sa lan laay defal sama bopp uhuh. sama loxo lépp dama koy gàll biite ko may ko yoon mu dem pour takk ci ndigg li waaw dóor ko tànk dóor ko tànk

amul yagal mi saay saay la de ñun ñu ngi fi mais ñu ngi bëri combat ya ah. mam sami jambar la amul yagal say saay la say saay la ñinga ci ca ñoom ñaar xolal xolal alaaji Moustapha sekk naa naan xam nga lan dimbal dimbali sax maam sa muy magam mi nga xam tek nako ci baatu amul yagal mm-hmm. amul yagal ñu fatale mo jakkal mam sa wañu ginaaw ñoom ñaar ñi nga ci avantage bi ni bu ko ratee bu ko ratee rek amul yàggal këpp añam bu ko ratee bu ñu lo waté musiba am mm. dina fexe li xew-xew ci diggante jàppale Fall mi suñu kaw la bëgg a jëm de <laughs> Baye Laye Fall mi acca ma ngoog Baye Laye Fall indi na dërëm ah. Baye Laye Fall indi na seet set ah. Baye Laye Fall indi na tono ah. Baye Laye Fall indi na stade Baye Laye Fall dem na dëkk Baye Laye lu mu ñu bëgg Baye Laye lu mu nar bu sutee Alaaji Moustapha Ndiaye déggal géwal ya dégg nga tëgg ma ca suuf waa fu mu ne lambe na waaw lii mooy benn garañ lambe na lii fi mu toll nii waaw gën gën fi doon dingoot na dingoot mooy mat na sëkk ay ceeb si fawaat nañu seeram yaar Sa moo wan ginnaaw Maam Sa amul yàggal nga ca amul yàggal sunu càmmoñ yow jël li xam mooy sengoor bu xonk gàccoo ko mu daan bi ma la waxoon bàyyi ko xel Sa loxo ndey joor waa li muy bëri de moom bu ko bàyyi léegi mën dóor mu daan bi bàyyi ko xel ala oho dóor na xale na moom waa dugg bi rafet na Maam Sa tourne Maam la Mame Sarr takk na ko takk na ko bum dogal door na ko caxabal Mame Sarr ñu bëree takk na ko door mu daanu jël na ko door mu daanu takk na ko wat na ko